sama gaay lu ñuy fàng kenn du ko jeex ki wax taqal nit moo wax setal nit actuellement ni procureur jot na li nga xam ne nii mooy dossier kii di Ousmane Sonko jël na lépp loo xam ni preuve la buy setal Ousmane Sonko taxañ na ko sànni fële témoins yi mu sànni fële audio yi mu sànni fële nee na moom li mu bëgg mooy procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu jàkkaarloo mais bala moo def procès Adji Sarr Ousmane Sonko dafa bëgg Ousmane Sonko ak kii di Ndeye Khady Ndiaye ñu jàkkaarloo may laaj toujours ma ne Ndeye Khady Ndiaye ak Ousmane Sonko lan jote ba tax ñu war a jàkkaarloo man loolu moo nekk question sama bopp bi Ousmane Sonko ak Adji saar Adji saar moo porte plainte Ousmane Sonko ñoom ñaari ñu war a daje aji kon Ndeye Khady Ndiaye témoin la ci te wax na li nga xam ni moo nekk wax na dëgg ji ak trahi bàmmeelam te dëgg rek yàlla tax bépp képp koo xam ne témoin nga muy docteur bi muy capitaine Touré ak képp ku man doon taxaw nga témoin ni lii du dëgg ay fen la mais procureur moom li mu gën a bëgg moo jàkkaloo ki Ousmane Sonko toog ak moom procureur dafa bëgg a jàkkaarloo Ousmane Sonko moom face à face parce que li mu gën a bëgg ci lool loolu ndax Ousmane Sonko dafa ko wax wax ju mas a metti mu ne procureur bi fenkat la duulkat la te man dinaa dellu waxaat ko procureur bi ku mën a duul la ku mën a fen la procureur Amadou Diouf moo dàq duul koy duul mbeto maan la mito maan moom mooy moom mooy kii di Amadou Diouf mais nag ñun sénégalais ñooy xool waaw wala déet dañuy xool ñu tëj Ousmane Sonko waaw wala déet ba xam dañuy seetaan ñu yóbbu Ousmane Sonko procès waaw wala déet sénégalais takk tug jur taxaw na avocat Ousmane Sonko yi laay sàkku ñu taxaw wax parce que mënuñoo jël suñuy preuve teg nit lii mooy setal Ousmane Sonko ñun procureur ni lii mënta setal Ousmane Sonko lii daf koy taqal Adji Sarr benn wax la wax mooy dañ maa violé te moom moo waxaat ne la gaa ñëw na mais deful dara dafa ñibbi waat kon procureur fan la mën a taxaw pour taxaw takk kii di Sonko dugal ko ci prison bi wala mu taxawal ko takkal ko maanaam yàq yàqaat judiciaire ba du bokk ci élection 2024 yi ñoom li ñuy rëcc mooy lan moo tax Ousmane Sonko nekk fi di Sénégal di dox bu léegi waawal déet ana ñi doon xeex Adji Sarr ana ñi doon jàppal Adji Sarr fan ngeen leen déggati léegi parce que lu dul dëgg du yàgg gis nga booy xeex dëgg man ba aji saar commencé ba mbir aji saar commencé maa ngi wax te bàyyiwuma maa ngi continué wax man ak samay morom ñi ngi continué wax parce que dëgg la xeex gis nga dëgg boo koy xeex yàlla xam na doom problème doo tiit doo jaaxle toujours da ngay toujours da ngay bég da ngay kontaan da ngay yeewu fajar sax sa xol di neex mais bu dee ay fen ngay xeex doo a doo nelaw ana ñoom Fatoumata Fouta Tampi ana Khalifa Sall ana François Hélène Gaye ana Gabriel Kane ma nga Amérique tëdd ana El Hadj léegi ah ana ñi doon xeex Adji Sarr kan nga ci déggati buñ génnee ba génn weer ba weer la wala boog bu Adji Sarr génnee actuellement ne Adji Sarr ay problème dañoo nangu sax téléphone am laaj ko ba xam pare bu def projet mu ni pareegut gars yi ñu ngi ci ay montage ay vidéo yu garaaw te vidéo yi dinaa lay waxtu su mën leen lépp lu fi vidéo bu génne envoyé leen ma ko ma découvrir leen lii montage la waaw wala déet parce que lu ma xam ci téléphone ko dama leen a